le ministre de la Culture, le ministre de la Communication euh, même le ministre de la Jeunesse jël seen nuyoo di ko teg ci sa loxo am mbégte également di ko def te mbégte moom li ko yokk mooy su suñuy diggante jàllee parce que sama doom la euh, li indi mbégte mi wala boog li ko yokk mooy olof yi dañ ne su diw su ne diw baax nañu ne mbaa mbokk yaa ko wax naka la ñuy xamee nit baax na wala boog ay mbokk naka la ñuy waxee ni diw baax na mooy su xewlee soo xewlee say xarit taxaw say mbokk taxaw ñi mënta ñëw sax wane ci façon bu bare nii bëggoon nañ fi teew gis ngeen par exemple image yu ñu doon xool léegi ngeen gis ci Baba Maal ngeen gis ci Pape Diouf gis ci ñeneen ak ñeneen ak ñoo nga xam ne xëy na ñi ngi ci yoon wi sax di ñëw te egg guñu donc loolu dafay wane nii muy mbokk muy xarit ñoom ñëpp am nañu mbégte ci. Euh, jaxasoo ak yow parce que yoon wi nga jaar la dëkk bi jaxasoo na soxla yi bari na xat-xat yi bari na de sorte que ñaari nit ak ñett bu ñu jógee ndax yow c'est parce que da nga leen ko jaral da nga leen ko jaral parce que da nga nekk ndaw loo nga xam ni da ngay servir d'exemple da nga nekk modèle parmi la jeunesse de notre pays euh, du ñu la dégg ci lu dul noonu du ñu la gis ci lu dul noonu te leer na ma ni say mbokk duñ la fekk ci lenn lonk yaa ngi ciy yëngu ñu du ci am kersa donc loolu doy na satisfaction lii nga xam ne moom nga taxawal aussi ambition moo tax nga taxawal ko xëy na du alal ju bari du leneen ak leneen mais nit dafay am ambition soo jógee ni fii laa jëm yàlla sutural la ba fi nga bëgg a dem nga egg fa mm-hmm. euh, bari na ci ñun ñoo nga xam ni li ma ko sama benn xarit journal di tooñee ni ma ba ngay jëkk ñëw ndakaaru mbuus nga yor xamoo kër gooy fanaan et c'est vrai nga départ ci zéro dara di jóg di daanu gëm sa bopp et c'est important gëm sa bopp doo dugg ci loo warul dugg mais lépp loo yaakaar ne soo ko defee mu amal la njariñ amal njariñ sa askan amal njariñ sa famille nga nekk ci loolu yàlla di la jàppale ba suñu jonni tey donc loolu dafa nekk exemple bon ku nekk mën na ko mën na ko mën na ko suivre donc pour revenir Bakar dañu lay féliciter ci liggéey bi nga def nii te du yàgg di nga xam ni toutes les autorités du pays kontaan nañ ci li nga def en commençant par le président la République. Bakane bu defee benn euh, lu tool nii man dama ci am euh, responsabilité parce que yàlla moom mooy mooy boole ay nit et je pense que yàlla bi mu ñu boolee quand mat na peut-être tey vingt ans euh, musuma fàttaliku benn yoon bu ñu waroo amul. jamais Bah Kane euh, waxuma man mais musique sénégalaise en général ñëpp ñoo ko amal njukkal kooku moom je le di au et fort parce que non seulement dafa am talent mais dafa am euh, yéene ak générosité boo xam ne moom la ji ci artistes Sénégal yëpp xam nga dafa am euh, benn vague artiste bu ñëw peut-être qu'il y a dix ans de cela je suis bien placé pour le dire Euh, am na lu ñu ci def tuuti ci musique bi te ba tey jii nii su may dégg euh, liy génn ci musique sénégalaise xam naa ni am na liggéey bu ñu ci def pour indi ci beneen touche te loolu Bakane def ci am am solo Bakane est un grand artiste avant tout euh, c'est un grand percussionniste boo xam ni vraiment def na liggéey bu am solo ci ci musique sénégalaise bon man sama diggante ak moom yàgg na damay toog ba si yàgg sax nit woo ma Europe la may woowee ne ma yow baakan lan nga ko defal ma ne ko lan mu ne ma musuma gis nit boo xam ne ay seede yu rafet lay seede ci yow tout le temps parce que su ko waxee ak su ko waxul yëpp xam naa ni dëgg la parce que moom xam na man xam naa ni musuñu waroo musuñu werante ñoom Babacar ak ñëpp booy yu bëri fi nekk ay artistes yëpp ci ay loxoom la ñu jaar on a créé le Jolof Band en même temps man ak moom moom moo créé Jolof Band c'est pas vraiment moi c'est Bakane qui a créé le Jolof Band parce que dama ko woo ba sama kër ma ne ko dama bëgg a defar benn orchestre nekk ko yow laay jox responsabilité nga choisir musiciens yi moo choisir quasiment quatre-vingt-dix pour cent des musiciens donc kooku euh, li ñu ko war a remercier bëri na. gis naa aussi liggéey bu am solo bu mu def ci artistes yu Sénégal yu bëri ki ci ñu ci gën a xam muy muy Pape Diouf parce que maa ngi fàttaliku ay jamono vraiment sonnoon na ci trop donc vraiment li mu jox musique sénégalaise musique sénégalaise daf ko ko war a delloo donc su defee studio bu mel nii euh, nit ñi dañ fi war a ñëw. di liggéey man mi nga xam ne sax temps yi xawoon naa bàyyi tuuti na xam naa naa dellu si waat tuuti ñu def ay donc vraiment c' un ami c' est pas musique bi moo ñu boole mais wóor na ma ni su amee su ma amee benn xarit ci musique sénégalaise et ça je le dis haut et fort c' waaw bu dee kenn numéro un c' est Bakane parce que moom je sais que suñu wéetee ma ak moom mujj gi dañuy toog une heure de temps mu may mu may tagg man ma koy tagg donc day dem ba affaire soof donc vraiment na ko fi yàlla bàyyi yàlla na yàlla vraiment wéral loxo yi ak talent bi te fii kër ñëpp la ñuy invité ñëpp ñu fiy ñëw man en tout cas euh, fii ak ak ak studio Prince Art laa boole dama koy xaaj cinquante pour cent cinquante pour cent parce que à la fin de la journée li ñu war a comprendre mooy euh, musique bi ñëpp ñoo ko bokk loolu dafa am solo ki ci gën a généreux moom moo ci génn générosité moo tax tey jii ni artiste bu fi ñëwul rek dina ma jaaxal parce que ak ñëpp la amal jàmm mm-hmm. donc musique pour ñi nga xam ne ñooy doog a ñëw parce que on est un peu bien placé pour le dire ki ci gën a généreux ki ci gën a mën a partagé moom moo ci gën a dem ci kanam te loolu responsabilité bu rëy la ci am parce que moom nekk na benn colonne vertébrale par rapport ak artistes yu bëri yu nekk Sénégal xam naa li ma leen wax donc te xam naa ni liggéey bi mu ciy def mooy vraiment ñu rataxal diggante yi àddina amul solo mm-hmm. parce que boo gisee ñu taxaw fii ñun ñëpp sol ay masque di wax moom mooy lay wan ni àddina am na leen lu ëpp importance donc yàlla na ko yàlla mottali moo koy gërëm au nom de de la famille yëpp famille bi yëpp mais xam naa ne ci famille bi man la ci jiital donc ma koy félicité sama rakk ji vraiment di di encore une fois di ko ñaanal di ñaanal ñu topp ci ginnaaw di invité artistes yi ñu ñëw ci studio bi def fi ay ay kii parce que musique sénégal dafa war a dem ci kanam te moom ci ci ci ci moom ci ñu yaakaar ci la bokk donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax julli ci Seydina Mouhamed. sant samay waajur sant sama yaay ak sama papa bu baax sant samay mbokk sama famille jërë-jërë yëpp nag maa ngi leen di sant di sant sama mag yépp sama mag yëpp maa ngi leen di sant bugguma lim kenn di bàyyi kenn sama mag ñëpp maa leen di sant sama rakk yëpp maa ngi leen di sant sama doom yeeg sama jarbaat yëpp maa ngi leen di sant tey nag dama kontaan li tax ma kontaan mooy bi ma gestoo fu mel ni suma papa sama mag sama xarit muy Alaaji Vieux Seck dafa bàyyi yite yëpp jóge ba Kaolack te jóg yombatul mu bàyyi ay soxlaam yëpp ndax moom mooy suñu papa ndax moom su ma koy xool sama xel yëpp day dem ci nim ñu yaree parce que man fi ma dëkk ci Kaolack maanaam su doon taw maa ngi fàttaliku day taw seng yi di di di di di na maa ngi koy fàttaliku loolu maay caat mais maa ngi fàttaliku loolu sama yaay daw di ut paan pour taataanal sama papa donc moom à l'âge de 14 ans la wàcce sama papa ci dépense moom vieux sec ñun ñëpp moo ñu defar ñun ñëpp moo ñu yar par commencement ay ñoom Badak ñoom Thiom Mbaye ak ñoom Abdourahim Ngom ak ñeneen boobu ñun sax ñëwaguñu donc kon kooku. dañ koy ñaanal fan gudd ak wér te mu fekkee sunu njëriñ suma papa wàcc na sama yaay wàcc na waaye nag defatuñu dara loo xam ne ne que maanaam moom su bégul rek ñun duñu bég beneen bi ci tegu mooy sama papa sëñ Mbacke Ndiaye donc depuis ma ñibbisi bi ma jógee Allemagne ba léegi heure bu ma ko woo daf may jël heure bu n'importe quelle heure tey dafa am leneen lu mu waroon a defi mais dana ma damay annuler loolu pour ñëw nekk ci sawet wet ma gestu gis sama mag El Hadj Rose gestu gis sama mag Mor Kumba bu jabaay maam yuga sama frère bi nga xam ne ñoo bokk maag moom benn maam ñoom dañoo bokk maam donc tey dama kontaan ba lu ma wax rek dama koy xeet gestu gis taala sekk mi ma bokkal ndey ak baay mu tuddee ma doom ma tuddee ko doom gestu gis sama doom sama taaw Babacar Seck gestu gis sama jarbaat bi ma déggal lool muy pagaay mbay donc dama sant yàlla gestu gis Ablaye sekk muy jéy baaba ak Omar Sow sama manager Sofia donc ak staff jërë-jërë yépp donc sama xel gën a dal ki may mujjee nag mooy Boubacar Ndour kooku sama xarit la yàlla moom mooy def loolu moom sama xarit la sama xarit boo xam ne ne que man xam na moom xam na yàlla xam na donc am na leen loo xam ne duma ko sax bëgg di wax mais moom xam na man xam naa yàlla xam na donc ci lu bari lu ñuy waxtaanee loo xam ne ne que ci suñu biir la yem donc sant yàlla mënul weesu lii ki may tëjee mooy Pape Cheikh Diouf bi ma taxawalee lii dane ma li may njëkk a def mooy pour ma solidarité génne naa suñu diggante xarit génne naa sunu diggante xarit ma ne ko loolu mooy lan mu ne ma studio bi dama koy loué pendant un mois quinze jours dama lay fay ba mu matta duma la desel dërëm ma ne ko saay yow suñu diggante du loolu mu ne ma li nga li nga def nii ku la dimbalewut wax dëgg yàlla kenn duma ci jiitu donc mu ñëw anticiper donc teg ko fi mu ko war a teg donc kon moom Pape Cheikh Diouf di Pape Diouf donc dama koy sunu ànd donc dama ko wax sànq sama mag Mbacke Dioum wax na ko Mbacke Dioum ñëw na fi sànq à 97 laa koy tegal maquette Pape juuf te bi ma ko koy tegal yàlla seede na ko ay malaakaang samay kaw mbagg kar Ndour mi moo njëkk a apprécier Pape Diouf wallahi azim boobu xamaguñ ne ne Pape Diouf dina dem jóolóoli ndax man dama gëm yàlla te lépp lu may wax rek lu nekk ci man la du ma wax mukk lu ma gëm lu ma gëm rek laay wax moment bi buuba di déglu Pape Diouf boobu buuba xamul Pape Diouf Pape Diouf xamul buuba waaye ki njëkk a mooy buuba ak Viviane Bouba yor watawat seen kër am jóolóor yi Art tey lañ koy wax Bouba di xëj Bouba dama ne ko dama la bëgg a dénk pap mu ne ma déet comme bu bëgg na ko def benn la ñun ñëpp koy defandoor parce que ñoom xam nañ sama digganteeg jëmm ji ni ñu mel kii musique boolewuñu dafa am benn baat bu ma koy wax ma ne ko ñi nga doon àndal ñu jig la bu leen bàyyi mukk ku mel ni Mamane caam ku mel ni Assane Faye ku mel ni euh, Modou Mbaye Tama donc ñooñu lu ñu lekk ci kii rek ay gor la ay ay dañ ko war a lekk parce que loolu dafa nekk lu yàgg kon jëmm ji sama diggante ak moom dañoo bokk ndey ak baay moo tax du ma ko jëy du ma jëy sama benn mag dafay wax loolu saa su ne Alaaji Ndiaye Rose danaan koy àndal te dëgguwul wax day dëggu maanaam xam nga wax buñ ko raayante parce que ku ne yaa ngi ci àdduna te yàlla di la dimbali yaa xam jaaykatu gerte nga yaa xam loo mënti def ci àdduna donc moom sama zimo la sama xarit la li buuba di wax buuba keroog dama ko seeti comme ni ma koy wax mu ne ma di nga tax dinaa delluwaat ci musique parce que loolu dañ ko séq xam nga ne buuba ñun Sénégal fii Babacar xam na li may wax ñun dañu doon fay loo xam ne ne li ñuy fay suñu doon def Viviane dafa ñuy fay lu ñuy fay nit ñi disque international pour jël temps pour bëgg a def lu baax donc kon ñun tolluwuñu fenn foo xam ne ne dañuy wax ci nit naka su dul noonu wala wax lu ñu gëmul parce que liñ ma am tey jii maa koy su may waajur ndax lebuma banque lebuma ma sàmba lebuma ma demba waaye lépp nag sama jabar da sama jabar dafa baax trop sama soxna dafa soxna su amee lu ko métti su ma amee man lu ma metti du nelaw dama doon jóge fii di jënd benn machine bu cher mu ne ma foo jëlee lii ma ne ko su dee li ma sama yaay ñaanal dëgg la ak sumay mag ak suma famille lii may song dinaa ko daan donc kon moom aussi tamit maa ngi koy ñaanal te xam na ne que lii teeñ bi rek la donc dafa am lenn loo xam ne ne que moom moo ko fi liggéey li ma koy ñaanal mooy yàlla nañu yàlla lafal cat te mu xaar ko fi beneen bi ci tegu mooy fii kër gii dama koy répété sanq maa ngi koy wax moom diggu seegul moom buuba def ne ma moom Pape Diouf dane ma génne naa suma diggante ak yow ni ñu mel ñëpp xam nañ ko damay anticiper anticiper bi mooy duma la desel un franc dama bëgg dama bëgg wone ñëpp ne ne que kër gi kërug ñëpp la damay occuper studio bi damay fay normal comme ni nii su ma demoon feneen ni may fayee si biir loolu Dieye Baba ngi nii taxaw ak ñoom Sofia dafa ñëw rek mu ne ma ana waa bureau bi gars yi ne ko ñu ngi nii mu ne maa leen suba ne seen kilim yëpp maa koy jënd moom moo ko def te yàlla seede na ko boobu maanaam lu ci bari yemm na waaye moom xaaruma ci dara parce que tolloon naa fi ay jamono yoo xam ne ci ginnaaw xawoon na métti trop mais dama koy gis moom daf may soutenir moom ak ay rakam dañuy jokkoo dañuy waxtaan te yàlla rek tax du jëyante donc di ànd moog jabaram ju baax ji bébé baas nga xam ne ne que man ñu bari dañuy wax loolu ah dama naan man bébé baas laa njëkk a xam que Pape Diouf ñu bari xamuñu loolu bébé baas maa ngi ko njëkk a xam quinze Wembley bi may njëkk ak Baaba laa xam Bébé Baas boobu xaw ma Pape Diouf première kasetu Pape Diouf bi ñu koy def Mor Kumba Mbeng mii keroog dafa ñëw barkelu yore cóol di tëgg ak taala mi ak Babacar donc kon loolu familia donc maa ngi wax presse bi aussi aw ma seen fay su ma limee damay juum bugguma lim mais ci musique damay njëkkee ci mag ñi alaaji Baaba Maal nu ma mel tey ku ma respecté moom la ginnaaw yàlla julli ci Seydina Mohamed ak su may waajur ndax soo amee fukki at ak juróom-ñett maanaam nit yóbbu la fu ne ci àdduna bi fukki at ak juróom-ñett laa am Baaba Maal yóbbu na ma bi may jënd kër gi yi nii ñu ma taxaw tey moment boobu ci Baaba Maal laa nekk dama jóge Australie doon yàq xaalis rek ma ñëw sama yaay ju baax ji mère Sophie Mboup yàlla na yàlla guddal fanam jël sama xaalis mook sama papa du Ndiaye Rose ne ma waagaan de laay jëndali terrain fii su fekkee pare nga day damaa bëgg yàgg waagaan ngeen taxaloo ma woo sama yaay woo vieux sec ñu ne ma mère Sophie lu mu def rek jox nañ la ndigal ma jël xaalis bi jox ko mère Sophie moo tax doomu du njaaroos waagaan mi nekk Japon moom moom kër gi topp ci man mu jëndal ma fii donc kon sama yaay Sophie Mboup yàlla na yàlla yokk fanam donc tey nag dama am kontaan dama kontaan su ma limee damay juum ci suba ba léegi sama rakk yëpp a ngi buuba sama rakk yëpp a ngi solidarité tey dama xëy Matar lu ne la fi gaa li lu ne la fi indi parce que Matar Pape Diouf boolewuñu Pape Diouf sama xarit la maa ko présenté Matar Matar sama rakk la maag yaayam booli mi bokk ak yaayam Vieux sekk mii ci majorette yi mu doon tëggal la sëru Matar nam Vieux Seck mii angal tëgg donc ma nekk ak yaayam Kaolack donc kon àdduna di dox di dox li ñu ma yoreel moo ne nag dafa bari kenn ku ci nekk dafa am lu ma séq ak yow ci musique may wax ku mel ni sama rak Ibou Ndour suma frère Papis su Konaté suma frère am di ñi ma Bouba Ndour doon yaree li ma naan ma su may def album ku ma soxla yow koo soxla nañ leen woo ci liggéey parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ku dee rek sa bàmmeel donc kon éducation boobu man noonu laay bëgg di doxee dama bëgg ñun ñëpp ñu bokk ndey ak ñaata xoolal presse bi ñaataa ci fi ne te ku nekk yaa ngi def liggéey bu am solo heure boo leen xëyee li ngeen di liggéey nii àddunaa koy gis ndax li ngeen di liggéey lépp kenn ku ci nekk yaa ngi bay sawar donc maa ngi leen di ñaanal yàlla aussi lépp loo leen man yàlla na ko yàlla yokk dama kontaan kontaan goo xam ne aw ma lan laa xaw ma lan laa war a wax donc kër gi nag këru ñëpp la waaw sunu daara la këru ñëpp la këru taalibe la te duñu dara buur aw lu may wax lu dul kontaan kontaan goo xam ne ne mën naa wax sax ba wax lu ëpp waaw donc maa ngi sant yàlla bu baax kontaan naa trop trop trop trop vraiment.